laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah fa laa ilaaha illallah fa laa ilaaha illallah laa ilaaha la la la la la mbokk yi Cheikh Moussa Fall Falilou mooy wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taxala wa barakaatu. nee kàddu yi mu bëgg a yëkkati daa bàyyi ko ci jëwriñ ñi nga xam ni moo ko yónni. di Serigne Falilou Fall jëwriñu sëñ Modou Aminta ji. ni ngi del di ñaan sun borom mu yàggat ak dundam te wéral ñu ko ne serigne mam Cheikh Fall sama jaay di di bay ci ñenn ñi nee na ki ñu bëgg waxal sunu serigne sunu serigne la de ndax serigne ba neena doomi serigne bi serigne bi la te mom mi ñuy bëgg waxal moy sunu doomi serigne baax yi ñu fekk moo rakkam yu baax yi ñu fi fekk yëpp. Eh, mooy ñoom. nga xam ni ñooy moom. moom it ñooy mooy ñoom. nee ay wolof yu jafe. Serigne Cheikh Fall borom ndigal. yaag sa rakk yu baax yi. ak sa doom yu baax yi. ak ñun murid yi fas yéene ànd ak yéen. ñoo ngi lay sant kenn la gërëm. Ah, nee day ci sa biiri bokk la la fekk. kenn jiituwu ci bokk. waaye kenn jiituwu ko ci bokk yi nag. waaye li muy wax nag. waaye lii muy wax nag. kenn du ko ci mere. kenn du ko ci jërëjëf ji. mooy li nga ñu téye. mooy lii nga ñu téye. kër gii suñ kër bàyyi. suñ kër bàyyi la. kër gii suñ kër maama. suñ kër sëriñ. kër gii suñ kërub sëriñ la. loolu nag moo gën a mooy sax li gën a wér moom muy suñ kër sëriñ. bin xëy. nee na bin tey jii. fuñ jaar rek. fépp fuñ jaar. yow mii lan fa jaaral sëñ Cheikh Fall Ndigal. ak koo bokkal pas-pas. ak koo bokkal pas-pas ku ne. sëriñ ah. Falilou Fall Cheikh mi ñu ngi toog. waaw waaw waaw maa ngi la ba tey waaye mu Cheikh Fall bàyyi ko. Ah. Moustapha ma ca Darou Fall. waaw mu gàtt waaw ma nga ne toog. Ah. nee lii muy wax nag sëñ Moustapha ñor na ko lool. nee waaye dëgg la ci moom de. nee mi ngi koy wax moom sëñ Cheikh Fall ndigal ni ko su ma waxee ba noppi lu ci des nii ko mottali. waaye mu ne ko man de sëñu ma loolu. axa kay Fall. nee bëgg wax rek mooy. nee li mu jubloo wax nag tey jii mooy. bu ngeen kër ga bàyyi xool mbooloo xool mbooloo ma seen bët tegewul ci seen bët tegewul ci Serigne Cheikh Fall ndigal mii ak lu aju ci kër gi ak lu aju ci kër gi te xool gisu leen te xool gisu mu yaakaar yi néew leen fa ak xamam moo toll ak xamam moo toll foofa waaye du ñaar du ñett waaye du ñaar du ñett kenn képp lanu li ne li nekk fii li mu nekk fii ak ñi fi nekkal ak ñi fi nekkal nee na ñun rek la fi nekkal sëñ sang yaa ngi dégg Cheikh Moustapha Absa fa nekk dem nee na ñoom it fa nekk yéen rek lan fa nekkal nooy nooy nee na ñooy yendu nooy yoor yooru nooy yoor yooru ñooy digg bëccëg ñooy takkusaan ñooy timis ñooy guddi ci yéen nee na benn rek lanu ku xam loolu noppalu waaye kër yi kët du ñaari kër genn la kër gii ñu toog tey moo yël kër gën bàyyi ko nee xam ngeen ni mu xam ngeen ni fi mu waxee. xam ngeen ni mu waxee. xam ngeen ni mu waxee. nangu ngeen ko itam. nangu ngeen ko itam. nekk ñi nekkal fii. nee na nekk liggéey ñu nekkal fii suñu Cheikh Fall ndigal. te ñoom ñi ñu waral fee toog. moo tax saa suñ ko suñ ko tegee ci yow. tegee ci yéen. tegee ci yéen. lan war a njëkk a wax mooy. lan war a njëkk a wax mooy. ñoo ngi sant ci gërëm. ci cër bi nga xam ni. yéen a ñu ko yoroon. kenn waroon koo yor. as bu defee lu mu waroon def. as gor bu ñu ko defee lu mu waroon a def. waxal ko ko. waxal ko ko. sant ko ko defal loola. sëñ Cheikh Fall borom ndigal. ñoo ngi lay sant. ñu ngi lay gërëm. yaag sa rakk yu baax yii. ak njabootu kër gii. nga xam ni mooy njabootu kër gën bàyyi ko. sëñ Abdou Aziz Fall Falilou. neel ni mu ko waxee. xam nga kër gi mooy kër googa. xam ngeen ni kër gi mooy kër googa. du ñaari kër rek la. nee du ñaari kër yéen rek la. suñu gisul fii. nee na bu ñu gisul fii. ñi fi nekk tax ñi fi nekk tax. waaye xam nga ni bu leen gisul fee. ku am cër bu toll nii. te ñëwoo fi. te ñëwoo fi. daa am kolo fa nekkal. nee na ñoo ngi fi nag faaw nag borom digal. Serigne Mahmadan Jobbe. Serigne Cheikh Fall sa waajur xam na ko. Serigne Cheikh Fall mi xam na ko. am salsasin juraasin ji rek. nee ca am salsasin juraasin muy 1977. sëñ bi daa xëy nuyu ko. sëñ bi dafa xëy nuyu ko. am ku mu koy siyaare ci bopp yi. waaye ba mu laatee bàyyi loxoom kat. sëñ Modou Aminta la ko waaye sëñ Cheikh Ndigal. ni ko sëñ Modou Aminta. nit ñu baax ñëpp. seeni jëmm mooy gëje. waaye seeni xol du gëje mukk. tegte nag lu neex nag ni ko. nit ku baax nak noko def non la la def lolu seigne Cheikh Fall am nañ ab lu yag mu gis borom arminat boo xamni wax jojje lay ton muni sop gi nga sop waaju ba nam ko seigne Cheikh ndiga dama la sop neena wax gi neena du sunna sax waxuma laa farata nee na mën loolu lu ñu sopp rek la. noo ko def rek. nee na nit ku baax ñoo la la def. loolu la tontu de. nee loolu la tontu nekk wax ju yàgg joojee. nekk wax ju yàgg joojee moom lay tontu. kon yow tamit Fall wax ji jërul guddal. li nga ne nu nga ci nekk ñun nga ci nekkal. yaa ko aju ci yow rek. yaa ko aju ci yow. muy ñëw di sëñ Cheikh Fall Baye Góor gi waaye loolu nag moo dal waaye loolu nag moo dal njabootu Cheikh Modou Falilou Fall lu ñu yëngu rek nee na lépp lu ñu yëngu rek yéen nañ ko yëngu ñoo ànd de xam loolu rek noppalu. ku xam loolu rek noppalu. noppalu noppalu yi nag. day bañ di wax di wéy rek. nee day bañ di wax di wéy rek. nan bàyyi noonu. waaye nag sëñ Cheikh Fall. mu ne su ko ñàkk tudd. sëñ Abdou Aziz bii nga gis mu suunu. nee na mooy taraange ji. su suunu loolu. moom sax ba bëggee néew ab joxe. waaw nee moom ba bëggee néew moom sëñ Cheikh ndigal sëñ Sang ba mu bëggee fexe ba wàññi ab joxeem nee naa far yem ci sëñ Abdou Cissé Abdou Cissé Sow asi moom loo ko jox doy na rek moo tax fi nit fajaru xëy Touba Fall ñëw gëj na fi lool gëj ay dé Thank you. Fall borom ndigal yàgg fi la tànn ku wér nee suñ ko seet na baax jërëjëf Fall jërëjëf Fall laa ilaha illallah laa ilaha illallah